si élection bokk moo mel yu ñu jëm si Kër Massar si dudee réseau enseignant yi si APR xam ne ñoo nekk ci département bu Kër Massar ñoom ñu ngi xar seen tànk tubéy ngir seen naataango bi nga xam ne moom lañ tànn tête de ci Benno Bokk Yaakaar mooy Matar Mbeng ngir mu mën a am ndam moom de gannaaw bi nga xam ne dafa rafetlu bu baax jéego yi naataangoo mi teg nee na dina bay waaram bu baax ak yeneen responsable yu fare si nguur gi ngir ñu mën a am ndam ci bépp commune yu nekk ci département bu Kër Massar. Bataille politique pour la conquête de la municipalité de Kermassar Sud, le réseau des enseignants de la paire du département de Kermassar s'active pour l'élection de leur camarade Matar Meng, par ailleurs investi comme tête de liste de Beno Bokoyakar. ce dernier, qui se réjouit de l'acte posé par ses camarades, promet de relever le défi avec les autres responsables de la mouvance présidentielle pour une victoire éclatante de leur coalition au niveau de toutes les communes du département de Kermassar.